asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen nuyu bu baax di leen ziar di leen bëggee yéen ñuy suivre tey nag fi si Pikine gannaaw ba booy ñaar daanee ki nga te ni moom mooy Balla gay 2 di ko félicité wat bu baax a baax a baax di félicité ki nga xamante ni moom mooy Balla gay 2 comme que combat bi dugg nañ ci bisimilahi rahmaani rahim ak lekk ci alhamdulilahi rabil alamin tey nag ñi ngi nii toogal toog ak Père Dégol gannaaw na ba combat bi bañ ko bëree moom am na ci loo xamante ni wax na ci wax ci waxati ci kon nag dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu waxtaan ak moom maa ngi lay ziar père. waaw maa ngi leen ziar yéen di ziar adduna yëpp di kilifa diine yi ak bu nekk Sénégal waaw waaw di ñaan yàlla yàlla yàlla def jàmm ci réew mi waaw di nuyu sama wasila di waa kër Abdou Khadir Jeylaani di nuyu waa kër Serigne Alhaji Malick Limaamu Laay Bu Kunta Ñaasaan waa kër euh, ah, di nuyu waa kër Baye Niass ah bépp tarixa bu fi nekk Sénégal maa ngi lay nuyu di la sant di la gërëm di gërëm Sénégal gépp daal Balla Gaye Boy Niang nan nga dundee combat ndax gis nañ bokk na ci combat boo xam te mën nañu wax ni c'est archivé ah bokk na ci annales yi nan nga gisee combat Balla Gaye Boy commencement du début à la fin. waaw ah, sant yàlla rek waaw ah, samay doom lañu ñoom ñaar ñëpp Balla Gaye sama doom la Sakké sama doom la xale yu mbër yëpp suñu doom lañu waaye nag ku gën a jege gën a yeey daal waaw. ni ñu ko gisee mooy làmb la woon waaw ñëw nañ si jàmm delluwaat si jàmm te bala ngaa def dara jàmm rek ngay am waaw bëri nañu ku nekk nga doon ñaan yàlla yàlla ànd na ak ñun yàlla may nañu ndam si kàttanam waaw du kenn rek ku ñu may ndam ku dul suñu borom tabaaraka si waaw moo ñu may ndam ñu delloo ndam ni suñu borom di ko sant bu baax si barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa waaw barke kilifa diine yëpp di ñaanal xale yu mbër yépp jàmm ak xewal waaw di remercier Balla Gaye di ko remercier bu baax a baax bala Gaye di remercier yaayam di remercier famille yëpp waaw di leen mastawu tamit làmb rek ndam li du génn génn Sénégal sax parce que bi nga xam ne génn Sénégal génn Sénégal ndax sénégalais fu nekk lañ nekk extérieur fu nekk maa ngi nuyu yëpp di nuyu waa Pikine waaw di nuyu yëpp. mais bu ñu ci côté préparation booy Niang ndax gis nañu Boy Niang combat bi lam mu ca waxee kon ni ko gars yi di waxee moo buggoon combat bi moo tax combat bi am mais ci côté préparation ñu dafa bett ñu bari ndax mbay euh, Mbaye Babacar dégg nañ ci lu ne. dafa blessé ci épaule. nga dékkaat ñu Boy Niang dafa am béy lépp lan moo taxoon lëlu bi ba gars yi di wax Boy Niang lii Boy Niang lëlu bi. waaw gars yi xam nga am na ñuy defar mais am na ñuy yàq waaw parce que làmb da ngay déglu nekk waaye nag ñu sant nañ yàlla boo ñaa amul benn blessure waaw lu blessure mu amoon kon tabatin après mu dem faju yi di baaraam bi waaw mu dem faju yi yàlla wérul ko mu ñëwaat delluwaat si ay entraînement am ah. waaw mais am benn blessure sant yàlla baax waaw ah. mais wàccaay bi la moo waraloon lëlu bi papa trois mois mu ci ah, nekk si ay mbokk ku nekk am ngay mbokk ah, waa Samb a ngi fi Tivaouane a ngi fi Thiès a ngi fi Touba a ngi fi ay mbokkam ñoo xam fu nekk Cheikh Ndoumare maamam waaw booy am na kër Tivaouane am na kër Thiès euh, fu ko si neex mu dem toogi fa waaw dimension bi moo ko laaj parce que tamit. bëriwul ñoom cuune ki ñuy bëri champion mag la def na fi lu nekk. te yàlla may na ko ginnaaw. kon booy bëri moom da ngay jël seen matukaay rek làmb quoi làmb. waaw làmb rek la. Mhm. côté wàññi poids Boy Niang bi gis nañu wàññi poids mais tamit entraînement yi ba mu simee ko ñëpp dañ ne dafa jaari wàññi poids bi lan moo taxoon Balla gay la wala pour bëreeg Balla Gaye am na yenn pois yoo xam te ni doo ko am. non non préparation sportive la waaw di sant kër bi yëpp. culture yu mag yëpp maa ngi leen sant ñi nëbboog ñi làqatoog ñi feeñ ak ñëpp ñu ngi sant ñëpp waaw di gërëm ñëpp si nekk bu déggee sama kàddu xam na xam na ko waaw di gërëm ñëpp daal di sant ñëpp waaw di ñaan yàlla xale yu bari daal yàlla may leen wér may leen jàmm ba ku nekk li nga yéene sa waajur ak li nga ko bëgg a defal yàlla may la ko si kàttanu suñu borom parce que xale yëpp dañoo bàyyi seen métier topp lamb bi di rayante guddi ak bëccëg pour yu ñu yóbbul seen njaboot ak seen i yaay ak seen i papa dañ leen di ñaanal rek ñoom yàlla lañ ko yàlla lañ ko yàlla dégg promoteur yi yàlla gën leen di ko xéewal pour ñu tëgg xale yi parce que làmb war na dem bay fay sax cinq cent millions waaw père euh, foofu laa bëgg ñu dégg parce que dañu daan gis Aziz la ah, euh, alors léegi ah, ñu ci tuuti ah, euh, que Boy Niang bi muy gis nga yàlla. yàlla yàlla xaalis. mais mm-hmm. xaalis am na sa am na kilifa yoo xam ne bi bëgguñu xaalis. yàlla bis mu nekk ma tëral nit te du soxlawul sa añ soxlawul sa reer ah loo gis loo gis mu yëngu si àdduna loo gis mu yëngu si àdduna yàlla la melentaan biy dox melentaan bi mu melentaan yaa si néeg bi nii di wut lu ñu lekk te yow yëgoo leen te ñu ngi tàngal suñu borom loo fi gis suñu borom la fii alal du dara fii parce que alal gis nañ fi njukka kabi gis nañ fi jili mbay lépp la ñoo dem bàyyi ko fi. ok lii moo am solo bu muy suñu borom tabaaraka lazi mooy joxe ndam moo yor ndam. alors ah, aussi gëm-gëm kan mooy dem làmb ji di gëm pour nga daanu da am gëm-gëm pour daan waa ji. ba noppi nag yàlla nag yàlla gëm-gëm gëm bi nga am. si la yàlla di xoole ci vidéo Saldé bu Saldé Ngom loolu amul waxul dëgg loolu dëgg parce que am na yoo xam ne ci xase àdduna maag Baye Ndiaye moom lañ doon wax foofu si mhm. biir gi waaw du ma fenn Baye sama rakk la parce que man man Tivaouane laa yoroo mhm. sama maam di jiite jumaay Tivaouane mais bi gis naa Baye boobu Aziz waxal. boobu Aziz waxal ci digg géew bi. ah sama ngeen fa téléphone yi ñaar. ah gisoo téléphone bi ba la ngay waxee Aziz ma ne bi dama jox ba ko jox Baye Ndiaye Baye Ndiaye ne ko. wuy sa man du daw loolu. bu ma joxoon dëgg sax dama wuyul as ma wuyu ko. mais boobu ndam li da nga téye ndam li sa kaw na. ndam téye mënu ma téye ndam de. ok ndam de yàlla moom ndam. man xaw ma sax fu ndam mais gëm-gëm bi nga amoon. waaw ah, gëm-gëm laa am rek ok selbe kañ soo selbe day soo selbe day ñu koy jox kii muy stratégie rek. mais mais ba tey tamit papa li ñu gën a jaaxal bi Boy Niang daanee Balla Gaye mu jaaxal Sénégal yu bari Boy Niang dafa tiim Balla Gaye man am lu mu ko wax. waaw ah, lu ko wax dara. ok Boy Niang ak respecté Balla Gaye. da koy masaw mais mënu ko yëkkati. ah lan moo tax mënu ko yëkkati. non def na ko saa kees. ok. dañoo fil loxo xës dafa fil loxo. parce que ñun suñu xëy na suñu kii tegtal la am moo loolu. mais Balla magam la jox na ko cër. respecté na ko. te Balla Gaye champion la boo xam ne. am ginnaaw boo xam ne. mbër yëpp ñooy ñaan yàlla daal Balla Gaye. Uh-huh. pour am niveau. parce que bala nga gëm yàlla bala da ngay gëm wóolu ko waaw waaw sport la da ngay bal ki dem Balla bu mu daanee. Gris Bordeaux ñëpp wax nañ dañ ne Balla Gaye préparé na Balla Gaye kii ah Balla Gaye day taxaw seen kaw nangam sangam waaw ñun rek loolu lañ bëggoon si kàttanu yàlla ak yonent bi Balla mu taxaw ñu ñëw daan ko waaw parce que ñun loolu lañ man lijjanti moo xamal lu ma lijjanti. deux cent pour cent. non bàyyi deux cent pour cent Pikine laa lijjanti. ànd jëkkandidoo dóorandoo comme ñu bokk Pikine ñu ngi nii ñu bokk Pikine moom ngay gis deux cent pour cent ku bokkul nag bokkoo mais am na Pikine si boor Balla ñëw si boor Balla Gaye Pikine géej boo ñaa am na fee fan si club fii la ñu fii fii dañoo togg seen añ parcelle noonu Balla Gaye fu ne la am supporter booy ñaa fu nekk la am supporter yow it bu la neexee boo dëkkee caare géej dama supporter Balla Gaye waaye ku nekk am nga sa gox ñun Pikine la wuyoo. Moustapha Gueye nga wax ko muy entraîné kan si Mbapat. Mbapat. Mbapat Ibrahima Ndiaye. Touba Diop na ko yàlla yéene moo yor suule bi. ma bëreeg nju ma ma bëreeg deuxième combat stade. maag Daouda Fall. numéro 2 daan ko Daouda Fall mu Daouda Fall numéro 2 mooy boobu ñuy wane sport chez nous ma daan Daouda Fall ñëw war a bëri si guddi gi mbappat mi. waaw ah, kooku suñu nit la. Mouhamed Ali Ndiaye suñu nit la. da ngeen koo recruter. Hmm. la. kenn moomu ko. dafa def dafa ba egg si niveau bu mu tàggu. kan. Mouhamed Ali lan moo ñu. boole relation lan la Mouhamed Ali Ndiaye yàgg na yàgg naa préparé ay lutteur. ok préparé la dëgër. préparé Balla Gaye. préparé Eumeu Sène. Uh-huh. mais bu ko nee préparé Boy Niang. ok mais yéen koo recruter ah? non non ñun luy ay rek xamuñu ne ay entraîneur lañu. ok. Mouhamed Ndiaye karatéka ñun ñu amoon Mohamed Ali Ndiaye boxeur bu Italie ñoo ñëpp ay ay kii lañu ah, ñu am Guiro am Diallo ay xeexkat la ñu am am xës ah yàlla waaw am keneen koo xam ne tamit yàlla na ko yàlla yërëm moo defal Boy Niang ba muy eh, Tony ah moo del Boy ba di sant waa zan Zag Séral yëpp waaw ak ay doomam ak famille am yëpp waaw parce que Tony lu Boy Niang am si boxe en l'âge de sept ans bi Boy Niang dalee école ba ñëw laa ko jox en l'âge de dix ans mu yëgal ko rim mm. fii Iba Mar ah. xale bi Tony moo nekkoon fii Zag Zag Séral Tony moo nekkoon école de police waaw moo jàngal boxe entraîneur Balla Gaye xaarim moo booy ñaa xamante nañu bu baax. ok ngeen booy ñaa wax. Hmm? mais papa tey nga bi nga xam ne moom booy ña di bëree yow loolu la lu ma lu dara. lu ma lu dara Moustapha Gueye bu ko neexee ma jàppale ku ko neex am na si droit am na si droit yaa ngi gis ñeneen ñuy jàppale euh, Balla te ay mbër la ñu woon mais am nañ si droit ku nekk ku la neex fu sa intérêt nga dem jàppale ko. mais rek lii daan mbër tamit da ko suñu loxo ñun. ok mais mais bi ko yëgee bett la. non mënu ma bett man yéen tey yooyu mënu ma bett mafia làmb mënu ma bett. ok mafia làmb dafay am ko. waaye mafia sax mu ngi si yéen yéen mafia fépp la nag. <laughs> mais père euh, ci côté Mouhamed. ay lobby yi lobby yi. Euh, ah, dafa lobby. Eh, acca père euh, ci côté Mouhamed Ali Ndiaye foofu. gisoon ni dafa entraîné wax nga ko sànq ay champion yu bari. Ah. ba ci Balla Gaye 2 su ma juumee moom la mujjee entraîné après le fait que ñu gis ay analyse am dem nañ benn instant sax ñu ne dafa far ci ki xam ne moom mooy booy Niang ba ay wax yu sew am ci est-ce que Mouhamed Ali Ndiaye dañ koo mos a contacter pour mu entraîner Boy Niang. waaw Mouhamed Ali Ndiaye bëggoon na ko Boy Niang waroon na dem INSEPS. ok mais après. mu mujjul sotti quoi. Ah, parce que instant bu ñu toogee waxtaan ñoom la ñu mën a jël seen responsabilité bopp. entre rek parce que li li booy ñaa jaar ba agsi fii. amal ah. seen jaar ku ba agsi fii. seen mag tey seen jaar ba agsi fii ah, ah ñoom booy sey ñoom cek njaga jóob mais loolu mu ngi Pikine te Pikine li fi nekk si ay technicien ak bu ñu yëmbal bu ñu yeewu nga teg ko ci yoon da dem sa mais da ngeen ay relation yu fiable. kenn si yaak Mouhamed Ali Ndiaye da ngeen am relation yu fiable. waaw parce que ay ay nitam lañu. ay nitam suñu nit boobu gis rek. yow yi di wax man boo wóolu kenn ba wax ko dara am na keneen ku mu kooku am na keneen ku mu wóolu. loolu mooy tas wax. moom ngeen indi mooy caméra yi fi ni am na ko leen ñu wóolu dañuy jël rek dégul mais am na ñoo xam ne dañuy dagg dañuy xool lu ñaaw ñu dagg ko. teg ko coupé ko collé. Mhm. ah waaw. Mhm. Ah? mu am benn wax boo fi waxoon nga ni Balla gay daf moo gën a neex a daan neex a daan boobu bari woon na ay polémique xamuñu fu déggool di waxee tey neex daan boobu mun nga koo décortiquer parce que am na ñu bari dañ ne Balla gay déggool warul wax lii warul wax lii te neex daan boobu fan nga ko tegoon nan nga ñu mën a décortiquer wax jooju. waaw ah, xam nga rek làmb mooy loolu dama mën nga ñëw dimbali dafay neex a daan mu na daal. ok parole nit moo ko moom mais yàlla mooy dogal. yàlla mooy dogal. tey yow mun nga mel suba tey suba damay dem stade. xëy sa tànk di métti doo dem stade. ngoon nga ko. bon wax ak ak ak wax ak dogalu yàlla bokkul. xëy na rek mun nga wax yenn saa yi mu tombé. ah mais man li ma gëm sama adversaire mun na xool li ma koy. waaw pour mën ko rentrer. ok pour mën a xool. dañu ah. gisaat ci biir làmb ji Eumeu Sène ñëw waaw waaw Eumeu Sène suñu doom la. Ah. papa moo papa mu ñun ñii papa moo papa Eumeu Sène moo ñu daan waaw. grand sëb moo ñu yar. Mm-hmm. maak Mansour ak ñoom ñëpp moom Pape Diop la mm-hmm. waaw li mu nekk si moom. moo nekk si ñun. Mm-hmm. waaw mais. Pikine moom lépp lu fi lépp lu xam ne xamoon na dëng hmm. dañ koy defarwaat na te defar am na si loxo yi muy jaar uh-huh. waaw uh-huh. yàlla si loxo Pape Diop mi nga xam ne yàlla na ko yàlla may gën a may wér uh-huh. ah mooy suñu mag ñun ñëpp ah, si ñi nga xam ne ñooy communiquer Pikine ay Pape Sarr am hmm. xam nga ñi nga xam ne ah, ñoo nekk Pikine di communiqué. xam ne foo la yónni ñu dem wax fa lu xam nga yooyu yëpp dafa am. loolu moo tax Pikine nekkat benn man ni ma def sama devoir parce que Pape Diop xëy na damay ñëw wax ma rek na ma lii ak lii nga war a def ma dem topp loolu. ok mais gis nañ ni euh, côté deux pour deux cent pour cent bi. per de Gaulle nekk na fondateur bi. même bu ko nekkul tamit bokk def na si ay jéego. ñu gis ni est-ce que deux cent pour cent bi am na lu mu apporteel xale yi. ndax bañ koy sos ñu ngi naan Père de comme combat Boy ñaa moom moo taxoon mu sos ko est-ce que tey 200 euh, pour cent bi yow la nga ca séntu woon am nga ko ci. est-ce que booy est-ce que Boy Niang jëkk bëri si 200 pour ah. ñaata xale ju bëri si pour cent la. bari na te ñoom ñëpp. ñoom ñëpp dañoo am jàppale. ok 200 200 pour cent bi 15 am dañ siy génne di jox mbëri. man mag la rassembler laa war a doon ah, am ñu ma si jàppale. ay kilifa Pikine ay ay ay ay homme de politique Pikine mooy ñi nga xam ne ñoo nekk ci maire yi ñooy responsable Pikine ñu taxaw jàppale ma si loolu parce que man lañ ma sant rek ma def Pape Diop daf ma ne doxal lii defal lii defal lii ma ñëw def ko noonu defal noonu ñëw delluwaat ko léegi bon xëy na mu ngi feebar mu ne ma defal lii defal lii comme man man soo neew fi maa fi nekk ma woo ñoom Pape Sarr ñoom Ibou Sy ñoom Lañang xam nga ñu communiquer ñoom xool li ñuy taxawee def li ñuy ay Aliou Ba xam nga ku si nekk def ama seen ñoo ëmb xale yi taxaw xam ma bon ñoom ñëpp ñu nekk Europe ak ñoom Ndiaga Diop ak ñëpp bokk si participer te loolu ku dëkk Pikine moom ngay ñaan yàlla pour xale yi bokk bi ma koy jëkk a def boo ñaak ama la ne ma dem leen ñu entraîner benn place man lañ ma sant rek ma woo amaa ama ñëw booy ñaar ñëw ñu entraîné ñoom ñaar ñoo benn place. mais mais papa bu ñu ñëwaatee ci combat bi. li li li li li li booy ñaar bëre. exact est loolu ngeen doon xaar ci moom wala leneen ngeen ko entraîné. waaw lii yéen lañ li dañ ko liggéey xeex bi sax lañ ko doon liggéey xeex bu metti waaw mais wal ne ko lii ak lii nga war a def parce que xam nañu. Balla Gaye li mu mbër bu mag la. li mu indi ba ñu gis ko. bu ko combat bi amalee njëriñ. du ko indiwaat da ko indi beneen stratégie. doon wax ay une minute ay dix secondes dañ koy bëriloo ba làmmiñ bi génn. yooyu yëpp mais ñun xam te wax yi bokkul ah. la woon. Ah, xam nga koo wóolu. Uh-huh. am na ku mu wóolu kooku day am ku mu wóolu. Uh-huh. mais beneen vidéo bi nga xamante nii nag wax dëgg yàlla di def buzz Père de Gaulle non Père nag franchement nag non Père de Gaulle moo mën a ceeñ. Père ndaanaan nga. Père ñu gisee nga def ci ben benn benn kii benn garab taxaw Sadio père nu mu saajo bala gay Sadio de Omar Sakho mais loolu noonu gars yi ne bataille psychologique la ñii ne day day magu. est-ce que ah, réellement. ku nekk ku nekk ak sa FM la. ku nekk <laughs> sa cosaan sa ku nekk sa cosaan. Ah. Balla Gaye dem na Casamance. ah man it mën na naa dem feneen. Hmm. làmb ak mystique ñoo ànd. làmb ak mystique moo ànd. Ah. lépp da ngay def. sa mystique pour daan. ok xëy rek ki ngay ñaanal. mun na demal def ko fee wala demal def lee uh-huh. demal def ah gis ñu bala Gaye dem xaw ma eh, taatu kii bi dem na fa sangu kon combat bi ah, jarul na dama lay laaj xurwa mm-hmm. xurwa ah, mooy ba ma jëyal ba ma jëyal fi bant dóor dóor ci guy uh-huh. moom Balla Gaye yoru fi bant eh, moom Aziz Ndiaye dóor sàkket yi uh-huh. ah ku nekk sa xalaat ah boo demee si sëñ lii defal lii publier lii nga publier ko mm-hmm. ah. loolu dong la. booy booy ñaa ne daan Balla Gaye moo nekk roi des arènes. est-ce que ba wax loolu. xam nga baal euh, euh, loolu yëpp am ba mu nekkee fee sangu. fële laax sangu. mais gis mu tudd tur. tudd tur Bombardier yow xanaa doo journal waxuma loolu.

posé question Balla Gaye loolu. booy ñaa amul jot boobu man maa am jot boobu. booy ñaa li ñu constaté mooy entraîné lekk nelaw. mais père question la rek posé na la ko ko acca acca. booy ñaa def rotation dul ko tànk. fàqal ko mu ñëw. loolu nag kaw ki lu bëri la. ay paala foofu. Mhm. fàqal ko mu ñëw. Mhm. bu mbër bu tiitee chaque jour day fitti bu fittee rek àndal ak moom. mais Balla ban erreur la def ban erreur la def ban erreur la def Balla Gaye ci combat bi. Balla Gaye ban erreur la def ci combat bi. ban erreur le fait que ba mu gëddee. non dafa bëree Balla Gaye dafa bëri yoon de. Balla Gaye li mu bëri Balla Gaye bu booy ñëwee ne joxeel pour dóor ko dóor ko la wàcc. tibb tànk bi. mais foofu ba mu tibbee tànk bi. mu dafa tibb tànk bi dafa def prise. dafa bëri prise pour dëj ko. boo ñëwee entreprise ba. mooy moo. man du ma du ma bàyyil nit ki mën na am. mooy Moustapha Gueye Tyson. Moustapha Gueye dafa jël tàngam Tyson pousse ko ko. ah Moustapha Gueye dina mu doon kii. bëri la si biir bëri la. ok dafa bëri yoon. noyyi wul dafa bëri yoon. ku ne Balla Gaye nekkul ci làmb yi xamoo li ngay wax. li ko doon ndam la lu wut si. Ah. coppeel la def tànk bi te booy ñaar toppatoo sax ba jël si waat mais bu mu defee rotation ba ñëwut loxo ba ca ngemb la bu booy ñaar defu loon rotation day tëj sa ngemb la da da koy dëj mais booy ñaar rotation bu def moo ñàkkloo loo Gaye ak dóor tànk bi bala fàqat bi Balla Gaye def ba loxo ba loxo ba dana dem ci ngemb moo wadd mu jóg nag fitti rek booy ñaar ànd ak moom plaqué à droite parce que bu ko planté woon à mun na ko mboot mais à la ñëw. léegi da koy tànc da koy ëmb. booy ñaar day dem seeti yaayu Balla Gaye. Mm. ko magam la nee ko ku daan na nga seet sa yaay moom. booy ñaar day jóge fii dem seeti yaayu Balla Gaye. non koy bàyyi mu yaay ñaari yaay ñoo mën a wax. loolu moo la wét. Sénégal la. léegi booy ñaar fu mu jëm fu mu jëm nag kii ko xam tabaaraka la kii daal oh, mais roi des arènes non roi des arènes mu nga mu nga ca mu nga ci contrat. Ah. moo te Ama ak Boy Niang ay frère lañu. Ah. Ah. rek keneen ku ñu xool. wala ma dox. lu mën a am rek. dama lu mën a am. li am solo ba am solo. mooy Boy Niang am na saf. du déggoo rek. fu ko estamam jógee. waa Pikine jëmee ko fa barki dem signature bi loolu dégg est-ce que dégg ngeen ma wax Pape Sarr moo ne boo ñaar du dem signature ba. Pikine loolu la ñuy doxee. te Pape Sarr li mu wax si ngeen tëb. non mais boobu xam na moom jóge na réunion xëy na xam na lu ah, mais man amuma droit pour wax loolu. xam na loolu. na moom mu ñëw expliquer li gars yi wax wala loolu. fii Pikine benn bopp la ñu. Pape Sarr ba la moo génn. attention de day wax ak staff de. Pikine mag yi. Paala Baba Diallo Aliou Ba Lañang gars yi toog wax Pape wax waaw. mais mais père ñu gis na démb combat bi waa dañ cee gën a taq. ah foofu moom <laughs> waa kër waa Sambe waa kër Cheikh Ndoumane Seck waa kër Cheikh na sa sal bi waaw waa Thiawane waa Thiawane ñaata kan la ñu indi. nga xam ne sel bi li muy wax juróomi kan la ñu indi fii dem. léegi boo fu mu ngem foofu laay kii. Sambe. Sambe <laughs> kontaan na ci <laughs>